effectivement loolu sax moom moo sabab tey jii euh, sànq junj naa ko laata mhm. ñu koy gën a yaatal waaye tamit euh, ki nga xamante ni mooy suñu deuxième invité mu di oustaz Makhtar Sarr moom jamono ji ma nga ca Fès ñu koy rek ziar bu wér wér ci jamono ji euh, di ko bàyyi moom itam mu nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di internet yi laataa itam ñuy dugg ci laaj bi jëmee ci wàll bi oustaz ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay. di muslu ci maanaam di nuyu di ziyaara ndokkeel ñi nga xam ne ni yëpp ñoom ñuy déglu ci weeru tedd bi ñu nekk ñu weeru mawlid mm-hmm. di nuyu mbokk mi nga invité xam naa jotuma dab waxtaan bi mm-hmm. xam kat waaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziyaara xam mm-hmm. na lu ma for ngeen ma dugalee mu wax ma déggee ci ne ku matrise li tax nga dalal ko la muy téere bi xam ne moom la mbokk moom bind tabaarakallaahu mm-hmm. mm-hmm. jërëjëf oustaz Makhtar ñu euh, gis ni nag euh, ginnaaw ba nga xamee ni ab déclaration ñëw na euh, jëmee nag ci docteur Ahmad Lo mi nga xamante ni da doon def benn ndaje boo xam daanaka weddi tuuma la mun nañ koo duppee ni ginnaaw bi nga xamee ni nag def na ab téere boo xamante ni da koo dëkk daal di fësal ñu ci ëpp ci borom xam-xam yi jàpp ni da cee rek ŋàññ ci anam nu mu gën a fësee képp koo xamante ni yaa ngi ci këru diine yi la ba loolee la dikk ngir rek weddi ko setal boppam wu ni ci biir livre bu ni mel est-ce que mën nga ci euh, dikkaat ak ñun ci sortie boobee nga xamante ni moom docteur def na ko ni ki démb waaw li may euh, njëkkee rek mooy wane ne Sénégal mm-hmm. réew la moo xam ne réewum euh, liberté la mm-hmm. réew la moo xam ne itamit réewum démocratie la ci tur yooyu ñuy utiliser mm-hmm. ci laay duggee ne ku nekk ci réew mi am nga liberté bu toll ni fu la neex nga woote fa daje ci heure bu mu la neexee fekk yaa ngi respecté tëralinu réew. Mm-hmm. kon ku mel ne man aw ma problème ci docteur Ahmed Lo su bëggee woo ak njabootam. Mm-hmm. mu woo leen ci bis bu mu leen bëgg wooyee ca fam leen bëgg a te kenn du ko gàllankoor kenn du ŋàññi mu woo ñam bëgg a leen bëgg a wooyee. Mm-hmm. loolu dafay baax ñu leeral ko ndax day mel ni buñ ko Euh, bu euh, génnee ñu nekk ci di wax day mel ni ñeneen ñi dañoo am droit dajale seen nit te moom amu ci droit mm-hmm. mbir mi jëmul foofu ci dajale nit ak bañ leen a dajale dafa am lu jiitu woon mm-hmm. mbokk mi dégg naa mu koy wax Sénégal gii ñu dëkkee mm-hmm. réewum lislaam la doonte am na benn terme bu ñuy tuddee euh, laïcité bu fi dugg waaye dinaay wax ne laïcité lay la rek mhm. mais réew mi bu fekkee dañ naan quatre-vingt-quinze pour cent ay musulmans ñoo fi nekk mhm. réew mi mënul doon lu dul réewum jullit kon réewum jullit la ci majorité mhm. mais laïcité la ci ay këy léegi nag majorité boobu nga xam ne ñooy ay jullit Sénégal moom docteur mos naa ko dégg muy leeral bi ay coow yu mel nii amee woon di wane ne mag ñi nga xam ne moom la ñuy tuddee mag ñi ka ca gën a yàgg Cheikh Ahmed Tidiane di indi date bu mu ganee àdduna ak wane ne lislaam jiitu na loolu Sénégal kon Sénégal jullit ñi yàgg nañ fee nekk di dund seen diine mais dafa am lu mu wax mhm. dafa baax nit ñi xam ko mooy Sénégal lislaam bi fi dugg mooy l'islaamu tasawuf mhm. muraabitu yi nga xam ne ñoo dugal lislaam ci senegaal ay nitu tasawuf lañu tasawuf boobu nga xam ne moo dugg Sénégal yàlla daf ñoo dimbalee ba Sénégal li muy bari bari këru diine yàlla dimbale nañu ñu dëppoo ci ñun ñëpp ñoo bokk gëm tasawuf Tuubaa Tiwaawan Njaasaan Canaba Yoof Fuuta Kajoor Bawal Jolof amul këru diine goo fay dem lu dul dafa gëm tasawuf loolu dimbal bokk na ci li indi jàmm senegal ba léegi ñu naan senegal réewum jàmm la loolu bokk na ci li ko indi mhm. mooy ay détails yu ndaw lañu ñu ci biir tasawuf ku nekk yoon wa nga jaaree ci tasawuf mais ñun ñëpp ñoo dëppoo gëm tasawuf moo tax ci yeneen réew yi ci tasawuf di jàppanteeg yeneen i kuréel du am Sénégal amu fi woon kon mhm. mosu ndax ñun ñëpp ñoo dëppoo woon li borom ibnu asib di wax ne fi aqdi lashaari wa fiqhi maliki wa fi tariqati ljunaydi saalik ci wàllu aqida imam abul hasan al lashaari ñun ñëpp mooy sunu sëriñ ci wàllu aqida te imam abul hasan al mooy imaamu ahlu sunna wal danaa ci dellu si tasawufu imaamu Junaydi la ñu tànn nga xam ne ba ci ibnu Taymiya tasawuf boobu noonu la la taam moom ci tasawuf nga xam ne Seydou Ahmad loolu lu téere ci wàllu fiq fiq imaamu Malik moom la ñu tànn Tiwaawan Njaasaan Canaba boo demee amul beneen école bu ñuy jàngale bu dul école imaamu Malik kon jullitu Sénégal mosuñoo am problème mu ŋàññante ci wàll gu mel noonu ci biir nag tasawuf la am kuréel ku nekk yoon wa nga tànn kii na Cheikh Ahmada Tidiane kii tànn Serigne Touba kii tànn Abdul Qadir Jeylaani kii tànn keneen kii tànn keneen kii léegi nag ci biir loolu bi mu amee Sénégal dafa toog ba jëmmi jamono loo xam ne nii lu fi lu fi ñëw la ginnaaw bi fi tasawuf duggee am kuréel boo xam dafa ñëw ne tasawuf bokkul ci lislaam waaw ah. mooy kuréel bii nga xam ne nii Ahmad ci la bokk moom te tey mu yor donkaasi gi nekk seen xalifa ci Sénégal dafa ñëw ne tasawuf bokkul ci lislaam tax loolu moom moo indi coow li muy taqdiisul asxaas dégg naa mbokk mi di ko tudd mhm. moom moo génn ci réew mi waa tasawuf ñoo ko jàngal alxuraan ba mokkal baayam nitu tasawuf la ndayam nitu tasawuf la ay maamam yëpp ay nitu tasawuf ni tasawuf ñoo ko jàngal ba mu dañ ci agréer mu génn Sénégal dem ne day yokki xam-xam ca réewu naar ya ca Arabie Saoudiya fa la dem ne day yokki aliwal mm-hmm. su Saoudiya la ëmbee doomu wahabiya wasinee si ko Sénégal mm-hmm. foofu la jàngee gannaaw biñ ko jàngalee Sénégal ba noppi mu dem foofu di mottali aliwal fa lañ ko jàppale ba muy def teesam di bind bind lenn la tànn mooy nitu tasawuf fii dañuy yàllaal seen sëriñ si mm-hmm. démb vidéo bi ma def maa ngi ko ciy cité ndax léeg-léeg booy wax ñu ne la li muy wax comme démb ni mu ko waxee mais aw nit ñoo koy jaxaseeg population bi mais moom amul fenn fu mu ŋàññee waa tasawu fu mu leen euh, defee ay yéefar waaw ñu ngi koy ñu ngi koy dégg démb mu koy euh, euh, wax moo wax ci téere bi ci paas ci tom njëkk bi xëtum juróom fukk ak juróom-ñaar ne képp ku kuy liir téere tasawuf yi mu ne nga ànd ak maandu bal kullu talaa bi imaanin wa insaafi nga màmmal sa gis ci seen téere yi ànd ak maandute ala masadirihim al asasiya ci li nga xam ne moom mooy gongikuwaayu waa tasawuf nga xam ne mooy seen cëslaayu téere yi lenn lii daal moom mooy résumé tasawuf seen waa pas-pas seen pas-pas lii dong la mooy yëkkati wëliyu teg ko palaasu yàlla mm. ak tàggat nit ñi ñu leen di liggéeyal aw li ibadatihim alal asax wala sax ñuy jaamu seen sëriñ si jaamu def leen yàlla di leen jaamu lii nii bu fekkee am na ci ci tasawuf ay deux pour cent lañ mm-hmm. li nga xamee ne man nga dem fekk ku bokkul ci tasawuf di màggal aw nitam ñu koy liggéeyal comme moom ni nga xamee ne noonu la ko taalibe mi defal démb te yàgg ko koo defal mm-hmm. moom moom tàggat na aw ni tey ñu gëm ko jàppee ko sëriñ ndax say xanaa docteur Ahmad Lo am na ku ma bind ne ma sayxanaa moom lu muy tekki ci wolof mu ne ko ñun de sayxanaa la ñuy tuddee sëriñ sayxanaa ndax nee na baat boobu démb daf ko dégg mu bari lool ci discours yi fu ñu toll dañ naan sayxanaa docteur Ahmad Lo kon kon day nduru ni xanaa moom li muy wax dafay contradictoire ak tey jii euh, li nga xamante ni moom lay euh, def ci doxalinam waaw li mu bind ci téere bi doon ko ŋàññee waa tasawuf tey moom place waa tasawuf la toog mm. tàggat nit ñi ñu di ko liggéeyal bu fekkee yëkkati nit ñi teg ko place yàlla loolu Arabie Saoudite la fekk baax mm. ndax seen buur ya dañ leen a yëkkati ñoom place bu raw ñun biñ yëkkati suñ sëriñ si lañ leen yëkkati mm-hmm. ñun senegal lu mu néew néew da nga dégg kenn ku bokk ci tasawuf di ŋàññ benn sëriñu waa tasawuf ci doxalinam te ñoom ci Arabie Saoudi amul kenn ku ñemee critiquer buur ba wala doomu buur ba amul ku ko ñeme xam mm-hmm. loo xam ne fii la ñuy naxee ni ñi senegal mais ki xam li xew ci àdduna bi kenn mën a tëggoon a bu ñu tuddee Malik Saoud euh, Malik euh, euh, nu mu tuddati seen buur bi nekk Arabie Saoudiya doom ji rek laay wax Mouhamad ibnu Salman mm-hmm. amul kenn ku ñemee xutba ca Kaaba ga ba daaneel lu dul ñaanal nga ko ñun imaamu Sénégal yi suñu sëriñ si dinañ xutba ba daaneel amul benn sëriñ bu ñuy tudd di ko ñaanal suñ benn xalif te ñoom kenn ñemewu cee daaneel te ñaanaloo buur ba mm-hmm. kon li mu wax ci téere bi de dañuy yëkkati suñu sëriñ si ñoom yëkkati nit teg ko palaasu yàlla Arabie Saoudi la fekk baax te ñoom gëmuñu tasaw alors kon kon tey euh, oustaz lan moo tax tey ñu dem ba yegg si fii euh, ñu gis ñi di ngat ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk euh, di jëmmal lu di suufi fii ci Sénégal tey jii lan moo waral kon ñu yegg si fu ni mel. li tax ñu yegg si mooy li muy daw di ko bañ mooy téereem bi mu bind ba léegi nanguwul ne téere bi da juum waaye mi ngi koy dëgëral démb boo gisee ko mel ne man waxaat. Mhm. suñ ñëwoon déglu man bi muy waajal programme bi waxuma lu ciy jëm ndax man. ku am tolérance laa ci yenn yi ku am ouverture laa wala maa ngi koy jéem am ndax maa ngi bokk fi ma bokk ñi ma yàgg dégg dix ans ma nekk Sénégal boobu di def émission na ku ma déglu mat fukki at ne ma man xaw ma ban nga bokk ma demee ba nga xam ne nii wax naa ko fa ma koy waxee nit déggee ko ko ñaareel du nekk ci rajo bu may waxee wala télé ndax loolu concerné wu leen ñu xam man laa bokk lu nañ xam ne jullit laa kese mm-hmm. kuy jéem a am tolérance laa ci kuréel bu mu mën ci doon mm-hmm. téere bi bi mu ko bindee li ci nekk ma yàgg ko fi jàng comme mbokk mi ni mu waxee ne liir na ko téere bi mi ngi nii sama téléphone ma yor tiim ko di wax mm-hmm. mais li nga xam ne nekk na ci mu adressé ma ko man Makhtar saar ci tarixa bi nga xam ne moom laa askano muy tarixa dëkk bi ma nekk euh, di kilifa gii ma nekk ci dëkk muy Cheikh Ahmada Tidiane mm-hmm. mais daf ma tag en tant que mi gëm tarixa Tidiane ne bokkaalekatu yàlla la mm-hmm. moom Ahmad Lo daf ma taxé man en tant que ki gëm tarixa Tidiane ne dam nag yi sax ñoo ma ëpp xel man nag yi ñoo ma gën a nekk nit mm-hmm. man en tant que gëm tarixa tijaan dafa ma taxe ne nit ku réer laa ku ignorant laa koo xam ne xamuma dara mm-hmm. léegi man ki nga xam ne taxe ne ma loolu ma liir loolu noonu le noppi mais man maa ngi dajeeg moom ci ay xew di ko nuyu mm-hmm. bu ñu amee programme bu ñu war a dajee pour loo xam ne nii cause bu jëm ci lislaam la mais am naa tolérance bu ñëwee ma yaatal ko dalal ko jox ko mu wax bu paree ma résumer ko ay waxam ku nekk ñibbi këram kon téere bi bu ëlbatiku woon gannaaw bi bindee téere bi bindaat benn maqaala rek ne ah man kat la ma bindoon gis naa ne njuumte am na ci mm-hmm. kuy bind nag ci njuumte maa ngi woo ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak man mm-hmm. lu jëm ci gisul asxaas nañ bañ di wéy di ko jàngale ci réseaux sociaux yi ak di ko véhiculer mm-hmm. mais bu boobaa dafay jeex mais téere bi ne liñ ko ciy waxal amu ci tamit mi ngi nii jant digg ba cëg la kenn mënu wax ne feeñu parce que moom mi ngi wax ni tudd ci benn këru këru këru këru diine amul euh, dem na ba ne ndax ci déclaration am daf ci tudd euh, turu Cheikhul Khadim ba tey jii ñu mën a ñëw bu ko jaxaseeg tey bu ñu xoolee euh, benn pàcc ci musulman yi démb loolu la fësal. loolu bu mu ñu fontoo man wax naa gars yi leen nañ ma bàyyi rek ma toog nii di maslaa mais bés bu ñu ma xëccee ba ma dugg ci biir taqdisul asxaas danaa leen wax seen baaxu maam ndax moom bu toogee naan lan moo tax tuddul Cheikh euh, Ahmad Bamba mooy wane na téere bi kon ñi mu ko doon bindal bindalu ko waa Sénégal mais mu ngi ko doon bindal réewu naar yi nga xam ne xam nañ Cheikh Ahmad Tidiane ndax su ñëwee wax ci tarixa muridiyya ni tarixa Tidiane tasaaroo ci àdduna bi te téere bi lu ñu bëri ay copie collé mm-hmm. mën naa indi lu ma téeméeri texte yu muy dellu ci ay référence yoo xam ne ci ay téere yeneen la ko joxatee yuy yuy attaqué tarixa Tidiane mu jël ko dugal ko ci biir li tax mënu la këpp tariixa muridiyya mooy àdduna bi amul ku bind di attaqué tariixa muridiyya ak yeneen yoo xam ne nii mi ngi ci biir yoo xam ne nii moom xam na lan moo tax tuddul tariixa muridiyya mu tëb directement attaqué tariixa tijaan yi ndax ci la mënoon a jaayee téere bi téere bi bu ci cuqati woon parti bi muy waxee ci tariixa tijaan ak mu leen yàq lu mel ni xeme bu jaayee téere bi mu jàpp léegi loolu nga xam ne mi ngi ci biir téere bi mu bind ko mu ne fànn loolu lu bind la maa kutiba wa maa xuffida farra yow man nga invité ma ñu def émission ñu dugal ko ci YouTube ñu xëy supprimer ko mbokk moom man nga ko dalal foofu mu def émission ñu dugal ko ci YouTube ñu xëy supprimer ko mais lu ñu mënatu koo dindi dafay sax bind rek a ko mën a dindi dindiwaat bu mu toog ki nga xam ne jànguñu téere bi mu dégg naa ko muy jimaamu di wax ne téere bi ñu ci bari mu amuñ niveau mën ko lii ah, effectivement lu nga yëg ne nit ku yëg boppam la nit kuy jimaamu la nit kuy wane ne Sénégal moo fi raw la te mos naa ko wax ñenn ñu ma doon jéem attaque attaqué ci jamono mën na cinq naan ma docteur moo leen raw su fekkee am ne lu ngeen di wax da ngeen di bind téere ma ne ko ñun docteur moo nu yorolaa téere ndax téere bi dañ bind téere dammate ko Cheikh Tidiane gay dafa jël téere bi dépiécé ko bopp ba genn la jël téere bi topp ko ko baat par baat topp téere bi araf par araf baal ma am na ko dugg ci réseau bi bu fekkee. waaw dinañ la jëlaat en repérage sax dañ lay garder en repérage après ñu jëlaat la euh, ngir ñu mën a yeggali aussi ci point bu am solo boobu jëm ci décortiquer li ci biir euh, livre euh, bu ni mel. solo ndax dafa am solo. waaw ñëwal ñëwal kon ñëwal kon. léegi Cheikh Tidiane Gaye téere bi noonu la ko dépeese mën leen yéen yéen a ñu yoralaat téere mais ñun yoraluñ leen téere ñun bind nañ téere ba tontu téere. Mhm. kon am na loo xam ne nii du dañu fi nekk naan ñu noo bindaat leen ak tontu leen ko ak moom mu naan téere bi amul ko am niveau mën ko lire ko amuloon niveau du ko tontu. Mm. Cheikh Tidiane Gueye bi mu tontoo mm. dafa jël téere bi ne ko ko invité ko ne na ñëw ñoom ñaar ñu def face à face fu mu bëgg mu fekk ko fa ñemewul mm-hmm. a toog ak Cheikh Tidiane Gueye Sid Lamine woote diineeg jamono pour ñoom ñaar dong nañu toog mm-hmm. ci diineeg jamono ba mm-hmm. Cheikh Tidiane dund na fi gannaaw bi mu bindee téere bi lu mu néew néew fukki at bindaatul ci téere bi waxaatu ci tontuwul Cheikh Tidiane Gaye mhm. gannaaw bi Cheikh Tidiane Gaye génnee àdduna mi ngi mel ne koo doon xeexal mu jàppale dóor la ba sa gémmiñ toj nga bàyyi ba mu wan la ginnaaw nga taxaw ci ginnaaw di ba mu ba mu faatu mhm. nga taxaw di jël ay kàddu yu ñaaw di ko jëmale ci kooku nga xam ne ba muy dund mhm. dóoroon na la dafa yow su ma doon wax ci langage su ndaw ñi loolu laay waxee pour ñu comprendre léegi nag loolu nga xam ne nii moom la bind mu nekk fi mais su fekkee ne bi dara nekku ci saagoo ci benn mag. Mhm. mais nañu nañu téere bi lu simple la. te it gis nañ publication bi yeexoon na aussi jëloon na benn temps euh, ndagam lëj-lëj yooyu moom moo moom moo taxoon tamit mu traîner. téere bi li tax mu yéex ko publier man am na lu ma xam de nee naa leen. Mhm. bu ma kenn dugal ndax téere bi bi mu ko bindee. Mhm. ba am loo xam ne nii gars yi dugal nañ ko ci. hésité bu rëy la hésité pour génnee téere bi Sénégal ku nekk conseil na ko ci ne ko attention. téere bi boo Sénégal dana bëri coow. mën naa tudd kilifa gu mag gu bokk ci ñoom maa toog ak moom mi ngi dund mën naa tudd raison bi mu dëkk maa toog moom mu wax ma moom conseillé na ko mhm. ne ko téere bi ëpp na nga koy génne Sénégal mu ne ko aw ma mhm. am lu mu ko tuddal ne ko xew na ba noppi kon téere bi il faut que dana génn te loolu mu tudd ne mi ngi xew mhm. maa ngi yor preuve bi maa ko téye di xaar ba taalibi mi kenn attaqué ma bi ne ma téere bi dugg ci nga wax kon li nga xam ne ni moom moo nekk ci téere bi lu mu planifié la lu mu la xam ne ne téere bi yow woo leen ko ngeen mu waxtaanee téere bi firi leen téere bi li ci nekk ba défi boobu laa koy lancé maa ngi lancé bu fekkee téere bi saagoo ci mag mhm. ñu defal nañu firil téere bi wax ñu lan moo ci nekk ñu toog ñun ubbi téere bi nii yor ko mhm. mu ñuy wax ne ci lii laa ci bind mhm. li ci nekk am benn mag mu ma ci saaga nañu defal lu rek jeex d'accord oustaz comme que comme que Serigne euh, ki nga xamante ni moom moo di Serigne son yi bu Mbàkke imam mi ngi fi euh, ma la koy wax mu ngi bokk ci kuréel googu di yes waaye bokk ci cadre mu di yi nekkee foofe ca Touba moom itam ci wàll bi rek lay wëy euh, sànq wax naa la ko dañ lay garder en repérage oustaz ñu ñëwaat continuer ci point boobu nga xamante ni ñu ngi ci nekkoon